ci ndaamaatu euh, bokk ci njabootu Serigne Fallilou ndaamaatu dafa bokk ci ville yi gën a jege jumaa ji ndaamaatu dafa bokk ci ville yi nga xamante ne moo dafa bokk ci ville yi gën a am impact ci dëkk bi ndax gis nañ ne hôpital bi mi ngi nii même pas cinquante kon tali bii nga xam ne moo jugee gaar bu ndaw jugee jumaa ja ñëw ba ci virage ndaamaatu jëm ci hôpital bi war nañoo taxaw def seen ndax gis ñuy def tuuba ay travo yoo xam ne bii moo ko gën a farlu moo ko gën a nekk farata ndax lan jege na jumaa ji te dafa am fu mu jëm muy si hôpital bi ndax gis nañ fi ay jafe-jafe bokk nañ gis nañ fi ambulance boo xam ne dafa ñëw pour bëgg a jaar ci yoon bu dem mënul jàll da gis ne jigéen ja nekk ci biir nee nañ ma ngay jooy ndax lan yoon wu ñàkk baax nga xam ne dañuy tegg ñetti at a ngi nii oto yu bari dañuy teggi tey corniche bàyyi nii hôpital Ndamaatu bàyyi nii tey ambulance yu bëree bëri di sëf doomi aadama yi ay jigéen yi nga xam ne tey so ñooy suñu yaay bu mettee ñoom la woon bu neexee tamit kon ñoom la war a doon dañuy bëgg a dem fii pour am doom pour ñu jàll sax day nekk problème fii la ñuy nekk yéeg ci ambulance di yuux ba ñun ñooy jug guddi gi lu mën di metti metti ambulance bu fi bu fi foncé ñun ñooy jug jëlee ko fi gis nañ ne que nawet bi daanaka ñu ci biir ndax tey rek daanaka ci guddi gi xaw na wicc wiccal fii ci Touba te su gënee taw fii dina gën a doy waar ci ci ndox nga gis lu ëpp ay trente nangam kër dañ fiy jóge boo demee ba ci jumaa ji rek jumaa yi Sëñ Saaliw nga xam ne ajjuma dañ fi julli daanañ dem ba dootuñ fu mën a julli ndax fees itam ay place u liggéeykaay yu bari yu fi tëje da ngay xool boutique yu bari daanu nañ téer yu bari daanu nañ kenkaayir yu bari daanu nañ ndax lan ñetti at a ngi nii tali bi doxul kenn ñemewu fee tijji tijji benn place ndax place boo fi tijji mu daanu waaw yoon bi di liñ ci gën a métti sax mooy jeunes yi nga xam ne tey nekkoon nañ fii di fi daan seen doole tey isan yi ñoom ñëpp ñàkk nañ seen liggéey jom ak fulla ak fayda moo leen may ñu nekk di engagé ba tey tey ñu fas ne ñëw defar lii nga xam ne moom mooy tëli bii nii. mosuñoo gis benn yoon ndawal euh, président de la république wala ñenn ci ñi nga xam ne ñoo yore wàllu assainissement yi wala tali ñu ñëw fii pour def ci liggéey bi bu ñu fi mësee ñëw itam boobaak léegi gisaguñu benn effort bu nga xamante ne def nañ ko fii pour jële fi ndox mi wala jë jële fi salte gi fi. politiciens yi nga xam ne ñu fi ñëw nag ñoo leen wax ne tey dina dakk fii bépp politicien bu fi ñëwati indi sa média ah, waaw bépp politicien boo xam ne ñëwati nga fi indi sa média pour politiquer Touba Ndamatou dina dakk ay jeunes ñoo fi nekk ah, yu engagé yoo xam ne tey loolu day dakk képp bu ñu ci dara nag milliards koy defal buñ ci mënoon dara ñoom duñ leen ci woo ñun dinañ ko defal suñu bopp ndax gënuñ ñu bëgg réew mi